réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam. si ku ànd ak Macky sàll ci li mu nekkee ci askan bi ku bon nga koo mën a doon nag. Giar kontaanee jox cër mbokk àdduna Giar kontaanee jox cër mbokk internet c'est le bon TV kon naa mbokkum réew mi ci seen chaîne la chaîne de la vérité seen chronique comme ni leen koy defalee saa su ne ci actualité réew mi waaye balaa noo sori dañuy wax bàkk bi doolay jën ndox la doolay saxaaraay la. mais dans les sites internet chaîne YouTube abonnement aimez, commentaire et partagez. je sais bien que vous êtes mais vous êtes ci Donnez like vidéo mais donnez abonné aussi c'est très important mais donnez vous partager vous leen joxe seen dans ci commentaires, yi ndax dama êtes là. vous ngi ziar yi YouTube moi tax du ci mais vous ngi bëggee vous ñi nga dañuy abonné ngi vous waaw di leen wax ni su doon sama sago damay jaar seen tur ñëpp mais bu ma tuddee kenn rek ci yéen muy Bouna Sarr l'international borom je réclame un million d'abonnés pour C'est le bon TV de Kona le véridique moom chaque jour loolu lay commentaire donc kon nag maa ngi teg bi ci kaw ci loxo Buuna l'international mu jàllale ko ci képp kuy internaute rawatina yéen ñiy joxe seen xalaat ci commentaire yi am na ñu ma ciy posé ay questions euh, dinaa ci ñëw dinaa leen tontu démb Coran bi doon jàll euh, alxuraan bi doon jàll ngeen baal ma dama ko fàttee pause parce que boo jullee fajar ba pale xam nga décalage heure yi bokkul des fois heure yi may def vidéo yi heure boobu la. des fois bu ma jullee fajar bu pare damay bëgg di déglu tuuti alxuraan xam nga comme ñun dañoo juba di ñoo gën a dëng garab yoo xaw a jéem a baax baax lu tuuti mais dama ko fàtte pause ngeen baal ñu ah ci euh, tur alxuraan bi doon jib noonu sunu kàddu di ko féete kaw loolu ñu ngi ciy tuub bu wér a wér a wér ah di béggee ñëpp ah di béggee ñëpp di nuyu Zos mon ami mon frère ah borom Sococim ah. sama xarit sama doomu ndey ah Serigne Samb ma ngi lay nuyu di nuyu Poco hein ah, sama fils borom keur Mbay Fall borom Salabon Couture lu mu ñawul baxul lu mu daggul donc ma ngi leen di bëggee ñëpp ah di kontaanee tay nak comme ni mu leen ko waxé actualité la ñuy Ben benn actualité tuutiwul xeebuñu ben actualité surtout li nga xamante tay dafa jëm ci fañu jëm moy 25 février nga xamné mom la tuddé tuddee daj dëpp gi moy le le moment ou jamais pour gagner Sénégal ci guute gi mu nekk. ci loxo yim nek pendant 60 ans wala pendant 60 quelques années muy jëlé fi système bi benen bi stop ma ngi ñëw ci débat bi tax may wax euh amna keneen ku mané aussi kona euh, da nga ma neex quoi bëgg na la trop mais suma ma affaireu khalif généraux yi nga baña a wax mané ah, xana mu baña don ordre du jour xana mu baña don actualité xana mu baña don ma am luma ci wara wax loo xamante ni dafay concerner ñëpp lu ñu bokk dafay laal mbir mi système bii ñu fi bëgg a jëlee su fekkee ne am na loo xamante ni jëfe nañ ko wala ñu waxe ko mu laal suñu combat bii ñu nekk muy combat de la souveraineté dinaa ci wax ndax bu ma déggee ab kilifa diine taxaw baayam bindoon livre tuddee ko l'Afrique aux Africains kilifa diine bu ko fi représenté taxaw ne ñun ñoo génn ci loxo tubaab yi dinaa jàkkaarloo ak moom nag ne ko ah sang bi dëgg la nag respecté nañ la dëgg la fonk nañ la dëgg na bëgg nañ la waaye yaa ngi wor sax njàmbalem bàyyi waaye nag boo nee mënuñoo génn ci loxoy France ñun ñu ànd ak yow ndax yow ñun tënku ci loxo France moo tax ñu toll fii ñu nekk mooy rek nañu falaat Amadou Ba su ma déggee xalif général bu taxaw ne Amadou Ba mooy sama candidat dinaa jàkkaarloog moom ne ko kon ñun dinañ jàkkaarloog yow ndax Amadou Ba dafa pare pour tay la Sénégal dafa pare pour jaar Sénégal te askan wi ñoo la topp askan wi la topp yëpp ku ci nekk am na foo bokk ci wàllu politique nga mën a jël benn candidat boo xamante ni xëy na peut-être bu système bi lan la ñu mën a wax wala mu gën a yées ci candidat yi en tant que kilifa diine nga ni moom ngay pare pour supporter askan wi dinañ jàkkaarloog yow ne la kii nga pare pour supporter bu dee da ngaa xamul toog la te tubaab yi la fi nekkal te tubaab yi la bëgg a jaay réew mi te ñun dañoo bëgg a tekkeeku dinañ la ko wax. xam nga kon du du ñàkk yar du ñàkk teggin mais dañuy wax dëgg te yàlla tax mooy que képp ku bëgg a dugal sa loxo ci système bii di ñu noot di pay ati at. di ñu toroxal di ñu ndóolal di ñuy deete seen heure dee di jot nga dem ci couloir hôpitaux yi nit ñi di dee hôpital yi amul dara jeunes yi di yi di dee ci désert bi ñi di dee ci géej gi nga bëgg a ànd ak régime boobu wala nga bëgg a ànd ak nguur googu di leen support wala di leen jaajëfal wala di leen yëkkati bu boobaa dinañ jàkkaarloo yow ak koo mën a doon parce que sama bopp mën a gënal du bañ naa la te ñii nguur gi ak système bi li ñu bëgg ci ñun su sottee tama du ëpp buum ñun attaqué ñu kenn on dit des faits est dégg su ñu toogee ba mu yàgg ñu gis cérémonie officielle wu am ci ci këru diine ñu jàpp président bi nga xam ni ay plus de soixante dix jeunes ñoo dee ba tey jii kenn mënu laa wax ku leen rey président bu ñuy jiñ kër ni dafa jënd ay arme dugal ko bi di pare di tiire ay ndawam président bu nga xamante ni tey ndóolloo na askanam président bi jàpp askanam toroxal ñëpp tëj ci kaso bi président bi nga xam ne dafa tas yaakaaru askan bi jël réew mi jaay ko tubaab bi yor ko fukki at ak nangam nit ci di dee jamono bi ngay wax mu ngi am 1000 et quelques jeunes ñu tecc ci kasso bi injustement ay di def lu leen neex di ndata talax ak gundaandaat ci alalu askan wi nga jakarlo président bobu ak nguur diko gëreum ko sante di ko ko rior nga rew mi ci jamm yang koy baye ci jàmm la ah kilifa gi li nga wax ak li bok li nga wax ak li li réalité bi méngoowul kaay ma wax la président bi ngay tag nan yor na rew mi ci jamm te mu ngi tagok ñun ci jàmm y a plus de 70 jeunes yo xamne dé nañ té ay bal fétal ño leen ray té ba légui kèn xamul ku leen ray té lool responsabilité la té lool du jamm ben bakkan bu faatu sax du jamm waxo na ak plus de 70 jeunes dé plus de 1000 et quelques jeunes tëj ci kasso bi té seen talibé nga ci kon té nguur gogou tay ngeen di gëreum di leen sant nguur gog ba indi wul benn lumière léral ni ñan ño ray ki xalé ba ñu parcel Parcelles jakarlo ak mom ni mu yor drapeau ñu ne ko pemb bal koku ndayam ak bayam duñ taxaw ne Macky Sall yor nga rew mi ci jamm yaa ngi ñun ci jamm te xale boobu plus sénégalais que lui tu meurs la te dafa mérito dee am boobu ñu leeral ko te makki Sall moo ko war a leeral ñu jiiñ ko ni dafa jënd ay arme tiire askanam barki dem Moussa Diop wax ko kon bu ma déggee bépp kilifa diine foo mën a bokk ak koo mën a doon ngay gërëm président boobu dinaa la la sëng sang bi bëgg nañ la fonk nañ la ndaw nañ la war warmal nañ la waaye li ngay wax ak li am bokkul bu dee da ngaa xamul kaay ma xamal la ndax ku xam lépp wàccu fi bu dee da ngaa yëgul kaay ma yëgal la ki ngay tag diko gërëm ku bon la ci askan wi li la fi def ci lu bon li la fi def ci lu bon bu dé li nak mom moy xeyna peut-être wax ak serigne si dañ koy continuer di def wa parce que nekul lenn luñu def lu ñak téggin wala ñu wax ko dañuy wax li am bu fekkee dañu wax ci ñak xam ñu xamal leen bu dee dañoo wax ndax far ñu xamal leen fi ngeen far baaxut ndax al lillah yalla la kon ñi li motax ñuy wax te lépp lu ñu yëkkati wax ko askan wee tax Sénégal moo tax attaqué wuñ kenn personnellement ndax ñun ay taalibe lañu ñu ñu xam-xam nañu ko waaye dëgg moom ak ñëpp te dëgg yàlla moo ko moom fu mu mënti jógee nañ ko wax te yàlla tax buñ bëggee askan wi defaru ñu bëggee changer Sénégal buñ bëggee defar Sénégal nañu bàyyi émotion bi nañu bàyyi par parloo bi maam Abdoul Aziz Dabakh danaan wax far mënta ñàkk waaye nañ moytu par parloo par parloo mooy nga gis dëgg-dëgg ci sa tànk parce que fa nga bokk wala diw sama xarit la wala diw sama sëriñ la wala diw sama mbokk la bu defee dara dama si dëgg sama tànk donte bu dee moo tooñ te la mu def bu dee ci boppam la yem coo mais bu dee dafa mën a laal askan wi ba yàq askan wi ba dooleel koo xam ne ku bon ci askan wi la kooku da nga ko a dénoncer kooku da ngaa a jàkkaarloo moom bu dee mbir moo xam ne nag dafa jëf ko ci boppam loo xam ne deful dara askan wi amul lenn kenn ku muy gaañ loolu mun nga ko sax bàyyi ci biir parce que loolu intéressé wuñu mais ay act yoo xam dañ koy posé ci askan wi mu mën a lor askan wi mën a dooleel def ñaaw ñaawteef bi mën a dawaleen nguur gu bon gi kooku dañ koo war a dénoncer ku ko mënti def ak fu mu mën a bokk waaw kon nag ñun lii moo tax ñuy wax attaqué wuñ kenn personnellement kon feeg def mu ngi am wax day am ndax ku ko def ku ko wax lay wër te képp kuy def luy néewal doole askan wi di néewal doole projet bii ñu nekk di néewal doole baa doole yi di gën a yëkkati lorkat bi dinañ la xamal bu dee dangaa ngaa xamul bu dee xam nga nag ñu fàttali la kon ñun nous ñuy wax ñu ñew rek ci ba ci débat bobu la bëgg parce que des fois les gens t'interpellent ne la pourquoi yeen ku andut ak gis-gis rek ngeen ko pourquoi ex passif pa passif sax mais philosophie la mentalité bi la moy ñun pour dem jënd carte passif pour bokku ci dañ ko ci xol est que donc yeen ex passif wala yeen ñu and ak Ousmane Sonko ah yéen képp ku ànd ku ànd ak Macky daal ku bon la si ku ànd ak Macky Sall ci li mu nekkee ci askan bi ku bon nga koo mën a doon nag loolu je l'assume et soo ma laajee lan moo tax ma wax ko dama la koy taxal dama ne la képp ku ànd ak Macky Sall ci lii mu nekkee 12 ans yi mu def ci ci bopp réew mi ku bon nga. loolu amul sax ay ex amul sax ay session de midi à 14 heures képp ku ànd ak Macky Sall ci lu bon lii mu nekk ci askan bi ku bon nga loolu dafa leer. ndax bu fekke ni yow da nga siw nga ni da ngay and ak nguur gi surtout man nak nga taxaw di di taxaw pour falat Amadou Ba mu nekkat president senegal nga gis li sénégalais di dund surtout man nga nek ko xam da nga tukki genn ñew genn ci yeneen réew gis yeneen réew ñu développer te amul lenn lu si réew yoyu am lu sa réew amul yow senegal yeneen réew yi amul luñu am lu loo amul yow ci ressource naturel mooy li nga xam ne yàlla defal na ko ci suuf te yàlla nee na réew mu nekk la leen di jariñ yàlla def nee na def naa ko ci seen suuf si dañ koy yëg jariñoo ko wala ñu ñàkk koo yëg ñeneen ñëw jariñoo ko depuis plus de 60 ans ñu nekk ci torox tànge dëkk boo nekk ñu dëkk yi ñu nekk ni nga xam fi ñëwee yàggul bu ñu feebaree dañuy faju gratuitement bu ñu feebaree dañuy faju nekk su nekkatul suñu souci te pourtant bi ñu nekkee Sénégal bu ñuy tiit di dee boo feebaree faju bo amé problème lu mu gatt gatt di nga am ben ben 1 dollar bo lek te ko fi sénégal da ngay fébar sax teud ci kër gi ba gañu ñu nan yalla ko dowal kon nguur gu tek lolu ak askanam képp kuy nga ci tek sa beut ngay dem ci hôpitaux yi ay ordonnance 1500 tax nit di faatu yallahu amna ko xamni billet bu mu jëndé hôpital 1000 francs amuko pour jabaram dem consulter bopam ta mo ngi fay impôt mo ngi fay taxe nga gis jamono bobu ñi jité réew mi yor ben luxe bu colossal bu insolent ñi ci tek suñu bëtt ñi tabax ay jambal jaaj la gis ngeen ñu leen ci wetu VDN bi ci wetu monument de la renaissance immeuble la fa am kan ma jambal nga ci tek sa bëtt gis ñi am di gën di am ñi ñak di gën di ñak te seen yaram dawul ci askan woow nga ci tek sa bëtt nga génn tukki gis yeneen réew yi ñu fonké seen askan même ñi fa xam nga xam ne euh, wuñu fa seni ak ñu di ko am Senegal, ñi fi cosaanoo ñoo gën a torox nga ciy teg sa bët nga ànd ak nguur googu nguur googu di jeex mu fit fee teg koo xamante ni bi loolu di am yépp mu ngi ci biir nguur gi ànd ak ñoom muy benn système bi mu ñëw ne man loolu lay continuer nga ni da ngay ànd ak moom mais dañuy xam ni yow de un def dof nga wala de deux defeyaa nga ñaar yooyu rek mooy mën a nekk képp ku ànd ak Macky Sall ñaar yi moo mën a am mooy dof nga tu es un ignorant wala ngay defeyaa parce que Macky Sall il a fait trop de mal au Sénégalais

ñu ne ay flagrant délit lañ leen jappé té loi réew ne flagrant délit boo ko jàppee ni dang koy atté bayiko mu ñibbi ñu japp ay nit yóbbu leen instruction ben ci Fadilou Keita j'espère que vous n'avez pas tué mon frère Amy Dia nga japp ko jiñ ko terroriste xawma force spéciale tëj ko ci kaso pendant ay at nguur gu baax du def lool ak yoy yep ñu jël ko toroxal askan wi lottal say jeunes ba ñuy ci géej il y a des gens qui meurent barki rek barki dem nee lañ la deux personnes deeti nañ ci géej gi bari nit desatu fa personne n'en parle président boobu képp ku koy jàppal tànk dof nga wala nga nekk ku iñaane sénégalais yi kon dañ lay ja dañ lay attaqué kon ça ne veut képp koo xam ne bokkut ak ñun gis-gis dañ lay attaqué waaye dañoo xam ne ku ànd képp ku nekk ci réew mii ànd ak Macky Sall benn ignorant nga wala nga soxoree askan bi nga bon ñaar yooyu moom parce que li mu def ci ñaawteef ak liñ ko yaakaaree woon ak li taxoon ñu fal ko ak li mu nekk di ñu defal c'est jametralement opposé kon ñuy yëkëti suñu cadre di wax li may wax nak sénégal ña fa nek amana duñ ko mëna wax li may wax ni bari nañu ko bëgg wax nek biir sénégal mënuñu ko wax ndax man wax ji ma di wax moma génné sénégal waye damay tok fi di len ko waxal ndax bari ñuy tok di def analyse euh, analyse sénégal bëgg nono wax man bëgg nono ab sama lamine bi diko wax mais buñ ko waxé tama du len ëpp buum dañu bëgg nek ci jamm motax sax ñuy tepp yenn débat yi mais débat yi du Macky Sall kessé li tardel Sénégal ak li lor Sénégal ak li toroxal Sénégal Macky Sall nga ci gën tout, c'est tout un tout un système kon système boobu ñun la ñuy attaqué képp koo xam nga pour wax wala nga jëf lu dooleel système boobu ñun dañ lay attaqué dañ lay jàppee comme ennemi de la République parce que Macky Sall il a dafa toroxal Sénégalais il a trop fait souffrir au Sénégal au Sénégalais des gens des fois nous disent que waaw de la loolu ngeen wax mais réalisation yi mais quelle réalisation Bonne réalisation la fi Macky def bu sénégalais mérité pendant 12 ans mais bu wax réalisation yo bo ba tukki sax ba nga gis manam nga gis Maroc rek man Maroc l'a je rek man xolal Sénégal nga gis réalisation yi ñi tiitaroo ñun da ngay dem Maroc gi rek hein nga nga nga quoi da ngay am royaume fa déjà nous di que ay terre quoi terre et quelques milliards. mu jugé xoma dakar la jugé fi yam jam ñaajo gi xoma xoma teungeej te semé de fer nekkon fi nit manam da ngay gis ko xamne daf lay bëgg naxé luxe yoyu nonu quoi manam fa melni que ñun manam li gëna am importance mu ngi melni tay nga tabax kër def ci ay matériel te yow bu ñu xëyé duñu mën am dépense bu ñu lekk ban sens la am te réalisation yoyu yëpp dañ ko lepp ci touru sénégalais dama koy fay nga koy fay bu ma deewee samay doom continuer di ko fay fii ak 30 jamono boobu ñu ngi am ay entreprise yu xam ne étrangères yu fi nekk di fi liggéey di fi am teraanga di yóbbu seen réew te duñu fay taxi ci réew mi. nga nekk jeune entrepreneur man mii xam naa si dara nga nekk jeune entreprise commencé di liggéey année bi nga créé sa entreprise année boobu lañ lay indil impôt duñ la may sax benn un an boo boo boo boo tegalee tegee sa entreprise mu tegu normalement. jamono boobu nga génn ci réew yi ñi sous raison bi soo xasee ba nekk jeune nekk nationalité ci réew moomu noonu dañ lay sax jox ay aide dañ lay jox ay privilège dañ lay ibbil banque yi nga mën a lekk mën a investir dañ lay ibbil bàyyi la noppal la impôt pour le juróomi at ngay mën a liggéey pour mën a taxaw mu ngi mel ni nga jur sa doom rek amagul sax deux ans nga amagul sax cinq yu mat dix ans nga sas ko dépense kooku kate nga avenir am Sénégal noonu lay def ay jeunes entrepreneur am noonu lay def ay jeunes yi nga xam ne tey ñoom ñooy jéem a teg di di jéem a mu teg ci marché de l'emploi di jéem a créer entreprise impôts yi lañ lay teg entreprise yu mag yi ak étranger yi nga xam ne tubaab yi ñoom ñi war a fay impôt duñ ko fay lii lañuy ñuy te lii ku ko xam maanaam moo tax Sénégal nekk fa ignorant dafa gën a noppale parce que da ngay am jàmm mais lii lépp tey nan ko koy xamee di ànd ak nguur kii tey wala ngay ànd ak système bii tey motax kep ku ñu japp ni da nga and ak Macky Sall dañuy japp ni nonu Sénégal nga kep ku bëgg falat Amadou Ba ci Sénégal dañuy japp ni nonu Sénégal nga kon man li motax ñun ñu yëkëti suñu di koy wax li lañuy dénoncer li lañuy la Senegal. pour Sénégal ngir Yalla neex naa comprendre Macky Sall lim nekké ci réew mi ak régime pendant 12 ans lamb daj la xol gis ils ont gaspillé l'argent du Sénégal toxal sénégalais ray sénégalais tej sénégalais yak sénégalais def ay peu réalisation parce que li lañ ci djublu won il faut que ñu am luñu def président mëno nek ci réew fukki at ak ñaar yor budget réew mi di lepp ci touru réew mi te mëno défar lenn luñu mëna a suñu bëtt lolu nekul moy développement développement moy nga fexé ba am politique de la jeunesse bu jaar yoon tay buñ la défalé terre défal la comme si que ñi wax ay dof la défal la BRT défal la stade mais di xoolal résultat bu mu jul après ñi ko défal tay ñu ngi génn di mangani réew mi yow léegi waa kay Macky Sall li fi def defal na fi terre defal na fi stade des fois sax ñu indil ay coupe coupe d'Afrique bi indil ko bolé ko ci réalisation ba tey léegi ana coupe d'Afrique ban njariñ lañu amal ngir yalla gars coupe d'Afrique bi léegi anamu anamu déggo ci scandale bi xaliss wata jatara mi ñu fal même pas deux six mois la def ci kii bi gis ngeen ñaata milliards xoma ma million la def ci bureau ci défarat bureau en tant que ministre des sports léegi ok il a réalisé ok Macky Sall def na TER def na BRT ah def na def na loolu yëpp quoi garaawul te béton kenn du ko lekk mais def na ko defar na ay tari mu le meilleur président mais après xoolal résultat bi réalisation am yooyu mu def defe naa daf ko defoon pour apaiser le pays daf ko defoon pour développer le pays daf ko defoon pour jeunes yi am yaakaar daf ko defoon pour nit ñi toog ci réew mi fier ci seen réew waa léegi def nga loolu yëpp tey léegi xoolal résultat bu mu jur moy que ndaw yi ñu ngi gedd réew mi di dem seen yoon kon loolu du développement bu dee pont bu rafet def na ko mais est-ce que tax na ndaw ñu toog fi est-ce que tax mi nit ñi am yaakaar ci réew mi réew mu am mu ngi mel ne nga tabax sa kër ba mu rafet bu ñu xëyee du añ mais dinañ génn uti añ ndax kenn du lekk ay ay ay luxe kenn du lekk lekk décor te xel nekkul aussi nga maanaam nga jéggi biiru doomu aadama yi ak jëmmi doomu aadama yi di def ci suuf si manam bi di def ay réalisation yo xamanteni ni après économiquement mënul am benn apport bu mu apporter réew mi lu sax daf leen jural ay charge stade bi tay ngeen di est-ce que xam ngeen ban charge lay jural Sénégal stade bu Ablaye bi est-ce que xam ngeen ñaata alal lay jural Sénégal ci maintenance te pourtant équipe nationale ba équipe nationale mo fay de football xam ngeen ban charge la leen jural kon nit defena buy def réalisation ngay titero réa da ngay xol après ban effet la def ah ok def na réalisation waaw këy def na fi ay terre building def na léegi après ban impact la def sur la vie des sénégalais c'est ça loolu mooy loolu mooy nite mais bu ñu waxee ak yéen ci techniquement ci ci ay fait ngeen dem naan ñu waaw mais il l'a fait tamit sur le au nom des sénégalais dafa lépp alalu Sénégal jël budget Sénégal defar ko kon ba tey même buñ ko ci dee félicité sénégalais yi lañ ci war a félicité parce que ñoo koy fay suñuy ko mais tu les parles que d'injustice fi Macky Sall def doxalin bu bonne bi justice bi ñu fooyee jàpp opposants yi di tëj toroxal askan wi lor askan bi ya jaxase sénégalais manam instrumentaliser lepp lepp ba sénégalais yi léegi dañoo am ben ben rancune buñu ñu amante seen biir loolu doon lu ñaawa ñaawa ñaaw a koy dénoncer nga naan ay def na fi terre def na fi pont mais après da ngay laaj impact ban la def sur la vie des sénégalais particulièrement la jeunesse da nga nan amuko kon pourquoi ñu di ko wax pourquoi ñu di ko tiitaroo kon ay ignorant la ñuy doon kon ngir yàlla bu ñuy wax ak yéen ci ay fee bàyyi leen di ñu wax ay waxu dof ñun nekkuñu dañoo bañ Macky Sall dañoo jug tëb tëb di dal ci kawam ñun ay fee lañ koy attaqué chaque jour dañuy yëkkati ne moo fi def lii ci lu bon te du ngeen ko teggi mais mënu leen ko téggé de mais da ngeen ñëw naan ñu yeen daal ku àndut ak Macky Sall rek ngeen ne bon la ku àndut ak Macky Sall daal yeen daal da ngeen japp ni Macky Sall daal ku ko bëgg rek yeen da ngeen fa bëgg instauré pensée unique Macky Sall ku nekk am droit far fu ko neex ñun ñu la ku nekk am amul droit far fu ko neex mais julit warul fanak ku bon julit warul fanak ku ku ku lor askanam julit warul fanak ku dul dëgg kon so faré ci lu dëgg xam day lor sa askan lañ la ko wax li la kon gay. je pense que j'ai été clair pour gars yi xam ñun fan lañ nek dañuy am suñu temps nak di gëna communiquer ak yeen pour ngeen xam ñun lan moo ñu tax di wax ak luñu taxé tax c'est très simple et c'est très normal lu neex comprendre la mais comme wax dafa metti té comme wax aussi ñu ñëppay comprendre lo à la fois et continuer di wax ak yeen ba bis di ñëw ngeen ñuy comprendre gëna partager gëna abonner. abonné jaa jëf